wetti gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim rew yaay chef moutarde chef Aïda la préférée de tous en sauce ou en pot moutarde chef Aïda goûte et apprécie yaay chef ci sa biir kër ak sa biir chef Aïda M60 pour Yini Wadial waajal koor gu ay thermos ay ser 2HP Grand Bazar daal du hasard asalaamaaleykum maaleykum salaam dalal ak jàmm ci suñu émission je te surveille avec euh, chef Aïda merci beaucoup pour l'invitation Qui kii te toi def tubayam jii nga xam ne da koo xotti ba ca kaw ah. man de loolu aussi sax débat ndax yaasa moom du ko mën yaasa. ko mën man balaa maa yegg ci yaasa gi maquillage bi nag gis nga maquillage am bii. Amina wala Mati lan laa ci war a wax sax. non tey moom Amina bi moo may gënal Mati na des ci plateau bi rek. Mati bi dafa xaw a diis bàyyi rek mu yem ci série bi. Hmm, waaw d'accord loolu tamit du ma ne déet. Amina euh, fan nga sokeko? ko. bon man je suis Saint-Louisienne. Mhm. Fof la judo, fof la màggee mhm. fof la yaro. Fof la jàngee fof la defé sama lépp. ah Amina en tant que Saint-Louisienne nak, kon war nga mën a mën togg xana. Wa loolu amna, dar mm. dar day mën togg dé. Xamna né nak sama mbokk yëpp ñi ngi toog di ma xaar nan. on l'attend. nag ndam nga fi jëlé sax nak. Amina gis na suñu ingrédients yi ci kaw table bi. Hm, gisna ko de hmm. ma ke xol sank ba tay ni way sen dugg bi ni roma lu mat den ko dakar wa wa baxna mais yow li la la jox ah yaasa de la ma jox te yépp ngeen ma nag mënoon ngeen ma indil sax lu gën a compliqué yaasa déggal amina <laughs> waaye yow bul crier victoire de ndax am na hmm. ñaar yu nekk fee say tante ak say bàjjen ñu ngi hmm. lay xaar nag jàddu koñ boo def rek dinañ la wax ci yow mënul dara rek bi may gis nii ya, kon amina mang lay bayyi nga xol nak no ñu defalé yaasa bi ngay bi ngay wax sank d'accord. ja bon d'abord j'ai enlevé mes bijoux bala sama ni ci biir di wax. <laughs> gis na maquillage am bii. go sax ñu ñu wax. yaasa bi bu mel ni bopam bi tam dina wacc waaw waaw waaw. gërëm ah, paas ñu may saf kankuraan de lii. ñu ñu <laughs> nag ku ñu yar de tekki na ba pare tekki takkaay waroon a mën a takk sëram naka ko gën ñun xam nga ni taamaam loolu la booy togg da ngay takk sa sër ñu defal le sëru wax nga tak ñu jox la ab set nga sol nga takk sa bopp waaye nga jël sa greffage bii maquillage sa kanam yi ah baax na nañu xool bu tekkee dëgg la dafa war a takk mais est ce que deful yaa si yaa si déchiré comme tubayam bi rek maa créé am na nañu fu fu fu bu takul boobu bi jël bu takul boobu bi jël ndaare de raxas naa sama ginaar ba pare léegi damay defar sama rof comme ça je mets ça nii ma muusal ko de temps may daggat sama soble pour defar sauce bi ñànkatang bi moom en dernier temps laa koy def incha allah. <laughs> ma ngay lox de comme pison de gisal mu téye paaka bi mënul <laughs> lu bëri waaw ah, baax na. yaa ngi ci xollum laaj bi. Mhm. waaye Amina looy def ak tournage yi nag par rapport ak koor gi. ah tournage yi moom comme que. C'est la première saison bi en ce moment on a pris l'habitude première saison c'était un peu difficile parce que nous sommes à peu près suñu premier projet la woon donc euh, miinaguñu woon mais on miin nañ ñun ak sonn bi ñoo dëkk dañuy sonn sax di doppewu di tourner pour sénégalais yi dëgg la nag sénégalais yi mm. kontaan nañ ci vraiment mm, ñun tamit contents nañ ci parce qu'on voit tous les retours qu'ils nous font di ñu encouragé man 3e âge bi ndaysan dañ ma bëgg damay romb ci mbedd bi ñu may ñaanal rek té naan ma bayil ni ngay def ma penda <laughs> na sama papa su meloon di ma penda ci série bi damay xaru rek Sénégal yi mën naa ñaanal dëgg la de dañoo mën a ñaan nag waaw waaye mën a togg ko gën de ne de làmmiñ baa ngi sàpp na yorox laan waaye nag <laughs> kii ma gis <laughs> Ndang lu weex lii léegi man nu may dëbbee roof bi wala dama koy yeey lay la daa dégg nga nee na lu muy dëbbee roof ba jamono ni nga xam mixeur la xew xana du fi soro kenn ni ñi dañu wor de taluñu ay daaj mo. Amina tu te présente chef Lahat Lahat traiteur bonjour chef Lahat Ni la kay merci beaucoup Ni indi ma gëna a ak kuur ngeen bàyyi wala da ngeen bëggoon ma yey no kos bi nag togg xam nga lu ñu tànn. lycée yi foto wu naa nii. Ah, biir waaye dañoo duggagul. donc ma def sama laaj poobar kaani. après-midi samaya ginaar teg ko moom moo sol kenn du ci benni rof rof la ko koy dama te da ngay dem piki ji wala kudd bi la koy piqué déedéet waaw baax na loxo ko na sama iya. tante yi ci biir la roofam seen ndaw man dara ngeen xam ne togg yu longtemps ngeen di togg. te làmmiñ bi nag noonu la safee dégg ko nii. boo fekk mënul dara làmmiñ bi day saf. ginaaru lii nga xamante ne bu ñuy tiim xal bi dafa jar paaka. roof ñoo rek mën. xam nga xoola xoola fu ko wax na boo yoroo muy tas. maa la ko wax. da nga koy rof ba ci biir. ni mu dankee rof bi la njëkk a fëse na teg paaka bi ginaar dañoo noy baaraam yee ndaw mun mun koo kii ndeysaan bu ko musalee def ci ndox rek ah bu ciy def ndox may jug ñi bi oh la la dara lii ma nar li mu war teg ko ba tey de citron li yor yaasa laa fi gisul man soo ko dégg li yor yaasa nañu xool bu mariner ba pare def ci citron ma fii laay përiyee de ginaar bi xar bi rëy na de gis na lu mu xaree waaye roof bi da ko war a dugal ba ci biir loolooy it ni nga teg di saaf waaw roof bi génn mu tas surtout buy muusal bu ko dëppee côté bu roof bi di nekk bu ko dëppee de day tas day collé sax ci cin toggoo hmm. baaraam bënn na ginaar ginaaru léegi yi dañuy lekk lu baax alimentation yu baax lañu yor ba pare pool bi day njuróog yërëm bi sax yàlla mu ko jaawale tissu yi dafay jàpp xal xam nga sax li ma lay wax balaa ñu lay sauver fekk pare nga yi <laughs> Amina ci ban étape nga toll nii dama nekk di tàggat sama soble su ma dama koy mariner tombe ak ginaar bi di pare man kasa ka dumun mo sa lagi na ambil ako ba ito, Gef? Ano sa lagi talo? Ano sa lagi da? Lagi mo snack, Amina. <laughs> Mafi dyan? Ah, hindi <laughs> ka Amina, why? Tiga da may jubli si sa manok ko sa sos. di masjid tuh, -hmm. Kung da may deflage, Je euh, ma oignon vert de fruits mais j'ai pas donc je vais faire avec les moyens du bord ma ci sama sama épices avec dara Je vais faire rek moyens. Je façon faire avec Badjani, moyens. di faire avec moyens. Je ay mon sama yow vais faire ak sa moyens. Je lay avec xamante ne bu ñuy togg dañuy tëlalante paaka dañuy jongale paaka yi di jongale di xàcc di dóor nekk bouche daal milliard de bii yeey ak a wala nga xam nga boole ko sel le set ay la xëy lalla nga be sa mu dal bi dañu remonter da da ngay cap rek sa bakkan bi déedéet kay première attaque bi bo boo xamul noo koy jëlee ba ay bi dafa neex dafa neex am guu dafa am bu sa kan nga mu daal day tax do feur ñu ya, wax nga dëgg laaj ko lekkat man ni ma gawé feur laaj ko lekkat ndawal jeex na da daal dalay bloqué ya. rawatina bi laaj iya. noonu dina sax li mu ci def nii yee ko nar a sauvé de <laughs> mu tardu seen ayda bii kii yaasa yaasa si tool bi soble bi dafa war a màndi yaa ngi waajal saaf sa ginaar ak suñu huile bi chef Aïda dañu rafet diwlin ah? dañu rafet diwlin mais moom yàggul togg de parce que ni mu tëjee diwlin bi nga xamante ne aayul parce que ku mën dëgg du lim yoo xamante ne dafa yomb tijji boo ko xoolee xol bi yàgg sax mu wàcc. Ah. diwlin bi nag xam naa moom bu ko saafee ginaar ginaar gi day rafet bu rafet lay am teint bu marron. rafet la ginaar gi day am. daal mën nga cee seetu de. Ah. li mu hésité dafa bëri sax ci <laughs> yaasa dong. am na fu ko koy dee. kii xam nga yaasa ba nan lañ koy woowee ci plat yi. Ah. rapido. waroon na pare bu yàgg. la di YouTube bi la faate am connexion lu mu tegee pooc sax di ni dañ nar a taf wante bu juutalee bi bii dafa wara a ni comme boo di tedd ni nga lal yu xat yoy ki day tedd fi bopam kee teg fi bopam non la defé defee ko la Denen koppelingen gidiyor. son bi la ko nag. li def dafa risqué ko boo bu nekké da nga jël préféré suur te doo tey ndox bi day rembé mu ceeb bi ñoy xawon tolloo ba paré ce feu yi gëna a pour yëpp na ñor mais bu jëlé risque li na yu na yuuxu aled na wo chef laay jax na wo chef ah mi ngi tànk ah, kii mi ngi dégg lii naturelul kii mi ngi ñuy dégg futu jéem eh, eh, dama xool bunt yi kii mi ñuy dégg lii naturel bu jooy kii mi ngi ñuy dégg c'est li muy connecté woo bari rek bu concentré woon tuut ci ah. togg bi ku aay lay doon mm-hmm. hmm? sax man. ba pare verte jaune rouge nga laal moom nga ko décoré taxawee nii ci digg bi comme ça boo fusee bu ñu lay mbéj bu ñu lay mbéj da ngay dugg directement ci sauce bi. ah. waxtaan nag bu ko defee fu ndar-ndar nag da gaaw ndar-ndar day teel a yàq diwul moom seen jikko la bàyyi rek lal napp dem toog teg ndox dem toog. <laughs> ndabu ñànkata ngi libre na de ku nekk ngi dem sa yoon. damaa ah, man damaa ngi xaar rek. yaa yaa ka ñaari soos lay am nag soos ma yóbbu sotti rek am sa kaani léegi taxawel ni waaw kañ bàyyi ñu ñamal suñu bopp nabu léemul léemul <laughs> nabu togg ko. jaar bi ah Bibou. ñaari dafay dara daggal ma ci waaye. nag de iya, aay iya, na yar nañ la nag. yee yee yee jàppal ma bala ah. waaw boo ko da ngay mos kese. est lu ne Nap am fi ñu lal ci suuf napp am fi ñu ci suuf. déedéet dañ koy yóbbu. daa ma jël soos bi na ba am jël tegal kuddi tegal kuddi kañ lañ toog nii waaw tegal lañuy loxo lañ jël lañuy toog fee. Amina daa mel ni bàjjen kontaan nañ de. nee nañ si ginnaaw àndal tey. kon plat bi jaar na yoon. ah kon xaaral ñu remercier suñu partenaires yi chef Aïda ak produit yi. ak aussi ku bëgg ci vaisselle yi rek na dem ci 2HP Bazar. paakaaka yi ma doon utiliser. waaw ñoo fa jaar. Amina daa mel ni bàjjeni kontaan nañ de. nee nañ si ginnaaw àndal tey. kon plat bi jaar na yoon. Mhm. ah waaw kon xaaral ñu remercier suñu partenaire yi chef Aïda ak produit mi ak aussi ku bëgg ci vaisselle yi rek na dem ci 2HP Bazar. paaka yi ma doon utiliser. waaw ñoo fa jaar ñu ngi lay remercier bu baax ci sa teewaay tey ci émission bi te dina ñaanal tamit kooru jàmm.